Mbengue Ndiaye. dëgg la. Mouhamadou Mbéri lii la soxla ngeen ci fonk lu soxla ay frères la ñu. lii la soxla waaye. Moustapha Diop Mbari Sila Mamour Diallo Aminata Mbengue Louga lii la soxla Moustapha Diop soxla jàpp ànd bopp day goy Mamadou Mamour Diallo Mamour Diallo Mbari Sila Moustapha Diop Aminata Mbengue day xaal ale bu Moustapha Diop maire Sylla Mamour Diallo Moustapha Diop maire Sylla Mamour Diallo Moustapha Diop maire Sylla Mamour Diallo ah. Moustapha Diop Louga lii la ñu soxla les frères Louga benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Louga benn bopp la Louga Louga benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bokk na Louga benn la bokk baay maire Sylla Moustapha Diop Mamour Diallo Mamour Diallo Mbéri Sine Moustapha Diop Amadou Dembel Amadou Dembel ñu jaay RFI ñu dégloo te tuuti Louga lii la soxla Louga lii la soxla bokk yaakaar sa toog naa Amadou Dembel Ndiaye lii la ñu soxla Diop lii la ñu soxla Mbéri Sine Louga Mamadou Mamour Diallo DG ONAS Mamour Diallo dellu Sénégal ma Diallo Ndari Silla Moustapha Diop Aminata Mbengue a Louga benn la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay fal Amadou Ba au premier a Amadou Bari Silla seen seen a seen bàjjen Aminata Mbengue Ndiaye tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar la déedéet Louga benn bopp la kenn mën ko xar ñaar Pousseur tuuti mu dem son frère Mamour dem son frère mu dem son frère Moustapha Diop xal la ko amit tamit gay xal la Ndiambour tekki na xal la yoon bi mu dem son frère Ndiambour tekki na la communication ñu déglu tuuti Ndiambour tekki na Moustapha Diop waaye président Bari Sila may leen ko mu Mamour Diallo may leen ko mu Moustapha Diop Njambur tekki na ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Louga lii la soxla histoire politique Louga le conseil départemental de Louga Njambur tekki na Louga tekki na ay frère lañu départemental de Louga honorable député Amadou Mbéri Sylla ànd ak kan Mamadou Mamour Diallo ànd Adja Rokhaya Diaw honorable député Rokhaya Diaw Njambur tekki na Njambur tekki na wax ko ca kaw Njambur tekki na Njambur tekki na Njambur tekki na arrière leen tuuti nag bu leen yàq président Marie Sylla bu leen yàq arrière leen président Mamour Diallo ministre Moustapha Diop Aminata Mbengue Ndiaye Njambur tekki na ndeysaan li mooy Sénégal li mooy Louga Didier lii mooy Njaagur lii mooy Louga lii la ñu soxla lii mooy lii la Mamour Diallo bëgg lii la Mamour Sylla bëgg lii la Mamour Diallo bëgg mooy benn lañu Malick Ba benn bopp lañu lañ ci sàmm benn bopp lañu bopp lool xarja Anta Louga Ismaïla Mbengue Fall Ismaïla Mbengue Fall Njaagur tekki na nanu bokk ndey nanu bokk baay fal fal Amadou Ba au premier tour arki si laa arki si laa. waaw bàyyi leen ko mu jàll bàyyi leen ko mu jàll nag. arki si laa bàyyi leen ko mu jàll nag. Ismaïla Madior Fall waay bàyyi leen ko mu jàll waay. bëgg Mamour Diallo lii bëgg. bàyyi leen ko mu jàll. bàyyi leen Mamadou Diallo Amit Ba Moustapha Diop Mbéri Sylla lii la RFI may bëgg man RFI lii laa bëgg. lépp pour l'état de Amadou Ba lu ko bokk ndey. dama ne pour l'état de Amadou Ba. Mamadou Diallo Mbéri Sylla Mbéri Sylla Mamadou Diallo Amit Ba Mbéri Diallo Moustapha Diop lii la. DJ Prince tontuma. safu leen ma Mouhamadou Mbéri Sylla ngay dégloon te parce que ñun ñoo mën a bu leen safu leen Mamadou Bari si bu kii. lii neexu leen. lii safu leen. déglu ma yow déglu ma. déglu ma yow déglu ma. je suis le micro central. de l'APR première heure. man RFI. je suis le micro central. de l'APR première heure. derrière le président conseil départemental. Mbéri Sylla. président Mamour Diallo ministre maire Moustapha Diop lii neexu leen lii neexu leen Malick Ba waaye seen taxawaay bi amul solo Malick Ba lii ngeen di def amul sens Ismaïla Madior Diallo lu nga benn bopp la kenn la Mamour Diallo bëgg bàyyi leen ko mu jàll li ngeen di def amul sens lii amul sens bàyyi leen ko mu jàll mani déglu leen ma déglu leen ma mani déglu leen ma da ngeen a war a dégloo Mamour Diallo Mbaye Sylla Moustapha Diop Mamour Diallo Mbaye Sylla Moustapha Diop Aminata Mbengue Rokhaya Diaw Aminata Mbengue Louga benn bopp la. Abdou Koumba Diop. Louga benn bopp la. Abdou Koumba Diop. li sooree ca. li sooree ca.

Baalou Mamour Diallo du Mamour du Mbéy Aminata Mbengue Amadou Mamour Soxla la jeunesse bi maa ko ànd ko devant la municipalité de Louga Mamour Diallo Moustapha Diop Jokalante Sow pour l'élection président Ibou Lo Aminata Mbengue Ibou Lo Mamour Diallo nee na permanence dañu def permanence permanence gars yi def leen action Amadou Mamour Soxla permanence direction permanence

jàppaay ba jàmbale Mamour Diallo Mamour Diallo kii nga xam ne séerase ngi nii. waaw saa ngi nii jàppale leen saa rek noonu de. jàppale leen saa sa waay yàgg Mamour Mamour Diallo nga kii moo xam Touba Seras kenn nooyalal Touba Seras ci daara yi. Labi. Pour saa rek noonu de. Ah, li bëggoon li la Mamour Diallo li la président Mbéri Sylla bëggoon Mbéri Sylla Mamour Diallo Mbéri Sylla euh, comme ni ngeen ko xamee euh, coalition benn Bokk Yaakaar bi ñu lancé campagne bi la ñu dugg ci terrain bi bien avant sax ñuy lancé campagne ñi ngi woon ci terrain bi ci activité de pré-campagne les activités de parrainage ak animation yi nga xam ne waroon na am bi ñu ubbee campagne bi aussi tàmbali nañ ko ak ay visites de proximité yu am solo tàmbali nañ ko ak liggéey yu am solo à travers la ville waxtaan ak population yi dem ci ñoom seeti leen. tey nag ñun ñëpp dañu àndandoo au niveau du comité électoral de la commune de Louga que j'ai l'honneur de diriger ñun ñëpp dañu àndandoo effectivement def benn caravane bu mag doxantu ci biir dëkk bi seeti population yi. waxtaan ak ñoom wax leen li nga xam ni moom mooy li Amadou Ba bëgg def ci réew mi distribuer leen également nos nos nos ak tous les supports de communication. li ma ci mën a jàpp mooy nit ñi génn nañ ci mbedd yi teeru nañ ñu ci marché yi ci carrefour yi ci biir quartier yi ñoom ñëpp wane nañu mbëggeel bi ñu am ci Amadou Ba kon nag jàpp naa ni caravane bi réussite bu am solo la may féliciter l'ensemble des membres de la coalition yi ko def en tête mon camarade euh, Amadou Mbéri Silla mon le président du conseil départemental, mais également le président du comité électoral départemental. Féliciter mon ami et frère Kanbay qui vient de nous rejoindre, mais surtout Sargal suñu Badian, la présidente Aminata Mbengue moom aussi jàpp na ci liggéey bi ainsi que l'ensemble des membres du du Benno loolu moo tax ñu am réussite bi tam. waaw bàyyi nañ ci xel bu baax a baax <coughs> ndax ku xew la sa bët dafay ñaw te ñun ñoo xewle fi mu ne nii xool nañ population yi gis nañ ni bàyyi nañu xel le candidat Amadou Ba gis nañ ni. bëgg nañu Amadou Ba jël réew mi ndax xam nañ ni mooy candidat bi gën tey ci candidat yi loolu sedd nañ ko waaye nag li des mooy ñun suñu bopp ñun ñëpp ñu àndandoo continuer wàcc ci terrain bi ci quatre jours yi nga xam ne moo des wax ak population bi gën leen expliquer li ñu war a def bu jour vote bi aussi ñu jàppale leen ba ñëpp mën a voter ci jàmm ndax xam ngeen ni ci weeru koor la ñu nekk te vote ci weeru koor yombul en tout cas maa ngi lancé appel l'ensemble des populations de Louga ñu génn xam ni voter Amadou Ba mooy seen njëriñ vote Amadou Ba mooy njëriñu Louga vote Amadou mooy njëriñu Sénégal. Euh, waaw bokk na ci li nga xam ni effectivement euh, premier ministre Amadou Ba le candidat de la coalition benn Bokk Yaakaar euh, dugal na ko ci programme am fii ci biir Louga bokk na ci xamle na ni bu faloo ci ay weer yu néew dana tabax fii ci Louga benn hôpital de niveau 3. boo xam ni kenn dootul jóge fii tey di fajoo ji Touba wala ngay dem Thiès wala ngay dem Dakar loolu lu am solo la wax na ni dana créer un million demplois ci Sénégal te bu créer un million d' emploi jàpp naa ni waa Louga dinañ ci am lu am solo wax na ni dana wàññi njëg yi ci biir programme bu toogee ñaari weer lay def ko wàññi prix yi waaye wax na tam ak njabootu Louga ndax sama frère Amadou Mbéri Sylla ku ne xam na ni c' est un produit de l' immigration c' une fierté pour l' wax na émigré yi dana leen bàyyi xel wax na ni passeport yi nga xam ni juróomi at la doon nekk dana ko yow ba fukki at ba émigré bu bëgg a ñibbisi bëgg a seet say mbokk baa ngay seet say sa soxna ak sa waa kër da nga mën a ñëw te du am benn difficulté dolli na ci aussi ne dana créer benn banque bu mag a mag boo xam ne day jàppale émigré yi ku ci bëgg a ñibbisi investir baa nga bëgg a ñibbisi jënd kër wala nga am foo dëkk dana la jàppale incha allahu taala li wax ci Louga bari na li mu wax ci Sénégal bari na jàpp moom xam na ko ndax nag nekkoon na ministre des finances nekkoon na premier ministre donc bu waxee ni mën na koo def war nañ koo mën a gëm kon nag mu bëgg sénégalais yi ak Lougatois yi surtout ñu gën a bàyyi xel loolu oto kenn du ko dénk apprenti te chauffeur bi na fi loolu mooy dëgg te kuy dem Dakar fii tey dugg ci bus chauffeur bi na apprenti bi kaay dawal sa xel du dal kon nag ñun Sénégal waruñu nangu loolu te candidat bi ñu yore xam nañ bokkul ak yeneen candidat yi kon nag nañ ko jàppale mu gañe mu gañe réew mi. dégg nga ngeen ak votre camarade Moustapha Diop ndax day bi ko ba nga xam ne waaw dëgg la comme ni nga ko waxee effectivement suñu frère le ministre maire Moustapha Diop jaar nañ léegi ci ci ci ci maire bi mu génn wax dëgg yàlla teeruñu euh, ñu waxtaan ak moom foofu waxtaan bu gàtt euh, muy lu ñu neex lool muy lu ñu bëgg lool. ndax nag mooy ministre maire wu dëkk bi kon bu ñëwee fekk si ci liñ liggéey dañ ko ciy sant gërëm ko ci te acte bu rafet la def en tout cas man personnellement amoon mon nom propre et au nom de toute la coalition ñi ngi koy féliciter bu baax a baax parce que il a compris que cette coalition là c'est la coalition de l'avenir coalition bii rek mooy coalition bi baax te wax na ma ci làmmiñam ne ma dana jàpp ci campagne bi dana ci def lu mucc ayib dana ci def loo xam ni lu mën ak lu mënul ngir Amadou Ba jël réew mi kon nag ñu ngi koy sant te ñu ngi koy taal loxo ñun ñëpp ensemble ñu liggéeyandoo ensemble la main dans la main toutes les forces vives de Louga toutes les forces du Benno ñu joxante loxo bu ko defee dimanche bii di ñëw ñu fal Amadou Ba Louga gis ci boppam waaye Sénégal gépp gis ci boppam jërë ngeen jëf. merci beaucoup pour wax ni conditions yi réunir na ñu ngi liggéey ba fekk dimanche incha allah mais balaa dimanche quatre jours yi ñu des daañu évaluer li ñu liggéey. li ma war a wax yëpp suma frère le président du comité électoral communal nga xam ni dëkk bee ànd jox ko ko pour taxawaayam ci dëkk bi loolu am nañu yaakaar bu baax ci commune bi incha allah départemental bi département bi aussi taxaw nañu def fa liggéey bu am solo boo xam ni am nañ fa yaakaar bu rëy kon nag bu nu boolee ñaari yaakaar yooyu dañuy gis ni incha allah dañu am ndam waaw ah, comme ni ko frère Mamour waxee Aminata Mbengue mu ngi fi tey suñu frère Moustapha Diop ñëw na wax na ni dina ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi loolu lañ doon xaar ci moom te ñu koy rafetlu ñun li ñu soxal rek mooy Amadou Ba jël ndam man du ma candidat membre du candidat kenn du candidat kenn ku nekk jël say ambition nga nëbb ko denc ko bañ fal Amadou Ba ba pare loolu daal mooy wax ji di wax ni daal incha allah ci kattanu yàlla seetaan naa benn film film boobu ngeen wax ni duñu di ko jox apprenti sa chauffeur bi nekk du ñu jël Sénégal fekk ñoo xamante ne ay xale yu ndaw nga xam ne chef de quartier sax mosuñu koo jiit baa ñu nekk conseil municipal ñu leen di dénk am réew ma ni na Sénégal yi xoolaat seen bopp waxuma ko pour man waxal naa sama bopp mais damay wax réew mi nañu xoolaat Sénégal maire bu mu leen tax ñuy def loo xamante ne rëcc moon ji fekk ku bunta jiite chef de quartier mosoo nekk conseil municipal mosoo yor benn benn poste électif xëy xëy rek ay maire ay tappale tax ñu naan la yaay président man ànduma ci te duma ci mës a ànd te ragal naa ni Sénégal yi duñ ko xool ci loolu te ay tappale mm-hmm. moo bëgg ñu toogee na le mm-hmm. may Amadou Ba nag mu xuus jàll parce que président Macky Sall lim fi liggéey loolu la Amadou Ba di àggal ñun suñu xool yëpp naqari na parce que président mi ngi dem waaye li mu liggéey lépp denk na ko Amadou Ba te Amadou Ba incha allah tànk yi président taxawoon rek la taxaw pour àggale liggéey boobu ak un plus bu mu ciy dolli wax na ko ñun jàmbur njàmbur ñun ay immigré lañu bu ñu boo amee passeport tey mën naa dire fukki def na lépp. Mhm. un hôpital de niveau niveau trois. suñ ko amee à Louga mais lan la ñuy waxati ñun immigré yàlla damay ñaan fu ñu mënti nekk nañ dellu suñu xel votel Amadou Ba. la ñëpp joxe ndigal ci kër yi ñu nag daanu continuer def proximité maa ngi nuyu sama frère Kane bay mi toog nuyu Aminata Mbengue Ndiaye bu baax a baax a baax Moussa Fat comme ni ko suma frère waxee ñu ngi koy woo ci liggéey mu ñëw nag waxuñu mu toog rek ci benn rox liggéey na ñëw ci liggéey bi ñu ànd demandoo dikkandoo dóorandoo xaj dóor mu daal merci beaucoup. lépp leer na waaye seen taxawaay bi amul solo bàyyi leen ko mu jàll bàyyi leen ko mu jàll lii amul solo lii amul sens lii ngeen di def amul sens bàyyi leen ko mu jàll lu nga benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar bàyyi leen ko mu jàll li ngeen di def amul sens lii amul sens bàyyi leen ko mu jàll li ngeen di def amul sens Mali déglu leen ma Mali déglu leen ma da ngeen a war a dégloo. liggéey bi bu leen ko yàq. arrière leen. Mamour Diallo. Mbaye Sylla. Moustapha Diop. yaram taw na. Mamour Diallo. yaram taw na ndeysaan. Mbaye Sylla. ndeysaan ndeysaan. Moustapha Diop. lii la ñu bëgg. Aminata Mbengue. lii la ñu bëgg. Rokhaya Diaw. lii la ñu bëgg. Aminata Mbengue. lii la ñu bëgg. Mbaye Sylla. Moustapha. Moustapha Diop. Abdou Coumba Diop benn bopp la Abdou Coumba Diop Louga benn bopp la Abdou Coumba Diop li soore Diop la ndaw si la li soore Diop Aliou Tata Mamour Diallo Abdou Coumba Diop Louga Tafira Ndiamou Tafira Moussa Zazou Abdou Ndiaye Mamour Diallo Moussa Zazou Abdou Ndiaye Mamour Diallo Amadou Ba moo soxla. ku tedd ki Amadou Ba moo soxla. ku tedd ki du Moustapha du Mamour du Abdou Koumba Diop Amadou moo soxla.